tamit wax na démb ci recrutement njàpp bi Ramdan. voilà ci moom la ñuy des ba tey. Mhm. moom euh, Wally Seck ginnaaw bi mu ñëwaatee rek ci wax ci li nga xam ne rek mooy mbirum fecckat yi nga xam ne ñoom ñooy jóge fii dem fee ci noonee la ñooy woon ci euh, mbirum Amady Badiane bi nga xam ne aussi boobu tamit euh, je vais vous proposer également d'écouter lu ndaw rek bu ko defee ñu daal di ñëwaat. voilà parce que ñun moom bu ñuy def people on essaie quand même de faire autrement jéem fexe ba détail yëpp gars yi jot ci donc ñu jéem a fexe rek moom waal yi am na ay kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko ci li nga xam ne rek moom mooy euh, départu Eumeudi Badiane ba ñëw ci li nga xam ne rek moom mooy euh, intégration njàpp euh, ak Ndeye Ndiaye Banaya biir fi nga xam ne rek moom mooy Ramadan. parce que loolu dinaa ci ñëw mais comme Ameth la ñu waxtaanee lan moo tax léegi génération bi nekk fecckat bi day jóge fii mu dem fële au lieu fële suba mu ñëwaat fecc même fi nga xam ne foofu lañ ko xamee mu fay fecc lan moo tax loolu. waaw loolu da nga koy laaj ñi nga xamante ni seen fecckat yi bu ñu demee fecc fenn ñoom dañuy mer man sama fecckat ils sont libres d'aller où ils veulent dañuy dem bàyyi léegi nga gis arma ji dem fecc Papa Diouf mm-hmm. Lamine Gawlo ji dem tëggal Papa Diouf tëggal keneen ak keneen c'est pas méchant loolu dara newu ci loolu am benn danger grawul alors euh, loolu da nga koy ñi nga xamante ne bu ñeneen ñi demee feneen ñu mer ñooñu loolu ñoom seen question la mais man du mu mën a répondre à leur place alors euh, euh, en tout cas ku ñëw sama kaw seen yàlla dogal nga sukk rëpp carrément publiquement ne da nga soxla fii te mu leer ma ne wàññiwuma dara amaana buñ la su bi nga ñëwee sama kaw seen li nga ñëwee fekk buñ la defu woon dara wala ñu xat xat xatal la wala ñu indi la problème. doo ñëwaat mais su fekkee yow Abba da ngaa ñëw suma kër loolu indil la problème man damay sentir point faible parce que dama naan ah comme Nouraas dafa indi problème Abba parce que dafa ñëw sama kër poids lay nekk ci man te ku ma xam xam xam na ni nit bu am yërmande laa ci doomu aadama donc mun ma bàyyi Abba noonu rek muy taxawaal ñu teel teel li amatuma fettikatu waaw dama jël exemple ci yow njàpp ak ndey njaay waaw damay jël exemple rek pour kooku nag ok damay jël exemple rek si yow waaw dafa nag waaw non déedéet parce que man du ma fecc kat déedéet waaw mais mais mais man du ma fecc kat mais dafa nag rek mais bu jël exemple waaw dafa nag rek dafa nag ñoo ñoo ñoo waxtaan sax ma jël exemple parce que exemple bi arrangé wala mu alors su fekkee yow da nga ñëw nga wax li nga bëgg bon su ma la mënee jàppale li ma lay jox cachet wàññi ma dara benn morceau bi nga ñëw joué ko wàññi ma dara te dama jàpp ni dara yàquwul man sama fecckat jóge na fi dem beneen groupe yàquwul donc pourquoi beneen bu ñëwee ci Wally mu war a grave léegi yow looy tontu ñu naan Wally tey vengé wu dafa mer le fait parce que xam nañ ni Pape Diouf ak euh, Sidi ñoo bokk nekk suba teel donc Wally dafay vengé wu parce que comme Ameth dafa dem fële donc moom dootul bàyyi benn fecckat bu fecc fa day jël ñëpp looy tontu ñoom non c'est pas ça c'est pas ça du loolu marquage de vengeance dama tombé rek tombé wala àgg ma damaa wax dunk man duñ ma baal dara loolu <laughs> tombé rek ñu jàpp wax naa ko dinaa ko yaa ngi may problème booy ay booy booy bu ma ñu problème dimbali ma rek mais étude avant ah les vidéos sont là bi le euh, petit cas est venu automatiquement le premier jour dama ko ne fi nga nekk fu baax la mm-hmm. yaa ngi ci sa yoon mm-hmm. ki nga àndal mu ngi ci yoonam na nga góorgóorlu nga topp ko jàppale ko mm-hmm. billaay walaay di laa ko wax ci kanamu bi Sénégalais yi. mais mu waxaale nga ko tamit may sa papa may papa. déedéet daf ma wax da waxin la man loolu dama doon tooñ de xam nga man tooñkat la hmm. li mu ne ay sama papa ma ne ko yi ñaar ñëpp yi samay doom ngeen loolu garaawul loolu garaawul amul amul benn danger. non non non non mais euh, ñi nekk ci direct bi yéen ñu ko gérer da ngeen wax booy faramaare ni ñu bàyyi. bon muy muy muy ay kàdduwaal yi ci li nga xam ne rek moom mooy. intégration njàpp voilà biir <laughs> biir Faramareen donc euh, déggoo waal nee na ko yow am nga tuuti jikkoy nit ku sew aba la ko wax nee am tuuti jikko nee ko yow am nga tuuti jikkoy nit ku sew voilà muy ay kàddu Waly Seck tamit ginnaaw bi mu àddoor ci mbir mi nga xam ne depuis mm-hmm. boobu ba ñu bëri ñu ngi ci yéey di ci yàbbi abi muy mbir moo xamante ne bon ñu bëri ñu ngi doon xaar mu wax ci parce que coow li bëri woon na trop abi mm. dégg nga waal yi moom nee na bon bu fekkee ne loolu yëpp ñu ngi am nañ ko laaj ñi nga xam ne peut-être mm. su seen fecckat demee beneen kaw seen ñu seen artiste ñu mer euh, beneen bi aussi mu ne bon moom bu fekkee ne moom nit ki ñëw nga ci kaw seenam boo fa jógee ñoom ñu mere la après day doon poids ci kawam beneen bi lam teg rek mooy que ni tey bu fekkee nit ñëw na ci seenam mu gis ni que am nga fa place day jéem fexe mu mu jël maintenant man ci fi may waxee rek moom Wally te moom la sénégalais yëpp waxee aussi loolee aussi man je pense que peut-être euh, bu toppoon commentaire yi aussi di ko liir hmm. dina ko dégg aussi parce que moom comme vous et moi ñun ñëpp sénégalais yi xam nañ ni que diggante njàpp ak sii Diop ça a été quand même diggante boo xam ne ñëpp ko bëggoon dafa mel ni rek nga ne diggante Eumeudi Badiane ak Wally bu fa coow amee euh, naka lay demee ñëpp la ñuy bëgg seen diggante mu mu mu nekkaat ci jàmm. Mm-hmm. peut-être tamit sénégalais yi euh, lu ñu ñu bëri doon commentaire bu ko toppee euh, mooy que ni ñu jéemoon a fexe aussi ba ba ba moom bu fekkee ne njàpp ñëw na te moom wax na ko yéen ñaan ñëpp samay doom ngeen. Mm-hmm. su fekkee mbir bi am na même bu fekkee ne njàpp il insister pour bëgg ñëw. Mm-hmm. mu xamal ko ni bon. Euh, dinaa la teral wala mu teral ko su paree mu yóbbante waat ko ci diggante moom ak papa mi nga xam ne mooy Sidi jóob ek ñëpp xamoon nañ seen diggante ñëpp xam nañ fi ñu jaar ñëpp xam nañ seen diggante fu ñu jaar fii ci Sénégal mm-hmm. donc mu métti ñoom ñaar ñuy jug ak daanu ba fii ñu toll et on peut même dire que mhm. moom moo créé njàpp loolu ñu wax ko ak ñu ñàkk ko bañ a wax moom moo ko créé donc comme que am na ci baat ci ñoom ñaar mhm. donc on s'attendait à que moom mu def benn médiation rek bu fekkoon ne coow am te coow sax amu fa woon mhm. comme jafe-jafe moo fa am te eh, Sidi Diop également le lendemain bi nga ko laajee nee na njàpp foofu këram la li ko métti woon rek mooy la fekk tey musicien mi dem fa mhm. Wally Seck daal di leen mel ni ku leen sous-estimé rek te moom ay euh, naataangoom fu mu leen gis daf koy yëkkati ngir moom jëmmam Wally donc loolu moom moo ci amoon donc bu ñu demee ba benn moment tey njàpp peut-être mu dem Gambie ne day ñëw man su ma sañoon comme mu ngi doon wax ni que moo ay ay frère lañ quand même euh, def lu baax yàgg na fi am donc mhm. mu ne leen dem leen ngeen delluwaat ci fi nga xam ne rek moom mooy ca subateel nga dem jàppale sa mag muy Sidi je pense que peut-être loolu aussi ñu bëri ñu ngi ko doon commenté aussi mhm. ku ne xam na waali xolam bu rafet euh, dafa généreux ba képp ku ñëw rek voilà ay xéewalam daf koy partagé ak yow. ah nañ <laughs> njàpp nag sama rakk jën nag génnewu ma ko loolu comme comme comme comme daal dina intégré ba pare li aji maas wax nee na euh, naax na comme ceeli jógee subatel naaw comme Thièli dem fi nga xam ne moom mooy ci yi njàpp sama rakk ji maa ngi koy nuyu mbokkum yaay Tafa donc sa gëm <laughs> dem na ba foofu donc te liggéey la rek yéene wuñ ko loolu quand te te Pawlish Mbaye xam ay waxam dafa rëy donc na ah. fa na fa na fa na fa gën a toog rek mais waali quand euh, voilà bi ngi noonu yaataloon na quand même te je pense que après mbir yi mën na jeex bi biir bi passé Sidi actuellement am na ki nga xam ne moom mooy Gogo am jibi mi nga xam ne doomu baayu njàpp la léegi euh, waali aussi am na Amady am na Arma am na Balago Boys am na njàpp am na ndeyjaay jeex na ku ne yaa ngi continuer sa yoon quand donc di leen ñaan ñu jàmm waa ak Awa Awa Banaya aussi donc mu ngi fa ak ñoom Tafa ñi ngi ak ñoom Alaaji Mbay donc je pense que mbir mi leer na kenn ku ci nekk aussi am nga am nga li gën ci yow donc nañ leen ñaanal jàmm rek voilà.